ya jëm nangam loolu rek million yu dul jeex la par aljuma nga xol ñeenti aljuma ci ci weer ka ngi dégg weer 12 mois mm-hmm. dafa warona euh japp magal gi waye ma ngi lay yegal ni mm-hmm. fu mu musa tek magal gi bu doon ben la ren gi yobbu nako ko lim jënd ci ay nak ci Mali ta ma fekk la tuba bëgg police fa du <laughs> man sama jëm booba ma de ko gis saa yu jëndee ba daral ga fees mu yàpp ci oto yi ñu mu ñëw ñaa agsi na nu nga naan saa yu xëyee uh-huh. xëyal lay xuus ca biir taw baag buuj buuj ya uh-huh. faaliwut muy taw faaliwut yooyu mooy tànnal boppam nag yi kooku ñàmbaar gi ci moom laa la wax boo boole woon góor ñi jigéen duñ ko man ko dañ koo waajal kun préparé day dugg ci nag yi di saytul boppam yëf yi di tànn léeg-léeg ñu ni nag mu bi yeyoowut ak màggal gi acca génne e nag wu bay gën damm danaan sëñ Tuubaa duñ ko def ci bisam bi geen bu dagg bokku ci xaw a ràgg bokku ci ñàkk suur ñàkk rafet gàtt amu melo am ay góom góom wala ay nu mu tuddati xa léeg-léeg sax mun la wee daa gumba du du nit lu ne la xam yaa ngi dégg bu mu ñëw daa gumba te boo demee ba ki nag def ko nii dangay gis ne du def benn kii nga xam ni kon lam la wax noonu la day tanal sëñ Tuubaa yi yim koy jox dama la bëgg wax ki sangam bi da ko wajal te li ma lay wax ni duma dundu la di gis bu jëndee ba bit bu set rek lamay jënd kenn du xam nu tollu ñu sëf ci auto ya mu ñëw non la koy de nga bit bu set lu mu jënd fa ndax day bañ ñu wat ko bu ko jëndee ba paré da koy da koy tamponé la ko amna tampon bo xam ne li muy signifié mooy Daaru Salaam Matlabul ak rek te lolo yoon wi tampana ko ñu def ko ci camion yi soxna ay transport bi mi def ci nag rek la la wax de magal na ab dekk waxuma ab ab kër ak yooyu dëkk lëmm <laughs> defar seen màggal ba mu suus <laughs> uh-huh. transport bi mi def ci nag dong mat nako pour wax la fam tek seigne touba ak magalam gi nim wajala ren magal gi lim jënd ci ay nak musufa yegg ndax mom leg magalam nak da du dootul màggalu ab xoku dekk mo magalam leg da international soxna ay da wañam ci rew mepp la legi uh-huh wa a wañu Tamba wañu Ziguinchor sor wañu jurbel ngabu lay samp wañu wala ngabu day am wañu bopam ngabu keur gune keur gune son ay dina fa dugulou nak day def par keur ba pare doo ko def wañu wi nga xam ne ñi nga xam nak ñoy doxandem yek yoyu ay rombu wa kay wañam wo bokku ca wañu tuba ya waye léegi dafa defewutu non rek dafa dat réew mi seigne tuba da non fu way nek sa mbég di sama mbég na màggal gi du liya àddina la fu waaye nekk rek ci nga soo noonu lay defee waañ Jurbel 14 régions yi ci réew mi yépp fu ci nekk waa ngi soxna Aida dafay am léegi bitim réew it ay waañam dafay am moom day ndar kepp moom noonu lay yokkoo <laughs> looloo tax ni jënd mu sukkoon di jëndee ndax moom màggalam utul ñaari dëkk léegi moom màggalam Sénégal ndar képp bitim réew noonu. léegi moom moom soxna Aida jëm moom fan lay màggalee moom la xamaguma ko. waaw <laughs> ah, nun ay taalibe la ñuy digloo rek. maa ngi dégg. waaye man daal li ma fu muy màggale waaye man Saliou Samb de fu màggale ma màggale ci wetam man làqatuwuma yaa ngi dégg man soxna Saliou ba ma ca gisee ba mu gis bu latte maa nga ca yaa dégg eh, sant sëriñ Saliou sëriñ Béthio eh, di leen sant ci dimbali gi ngeen dimbali ba mën a waxtaanee jëmmam jooju ndax man seen beccoo wax dëgg yàlla ku ma ci laaj rek dugalaat nga ma ci santaat ko waaye nun taalibe yi day maa ngi lay seeral ni li nu sant seen beccoo daa bokk ci li ci gën a rëy te moo ci gën a rëy mooy Soxna Aida Saliou mii ndax li tax mooy kullu sunhatin dalilatun ala saniha jëf joo gis la muy tegtale mooy ka jëf-jëf ja seen beccu liggéeyam bii fi mu ko toll mooy liggéeyam Serigne Saliou bii ak fi mu ko indi lu dul yokk ak jëm kanam mënta am ci liggéey bii waaye teg gi ma ko teg ci ay loo xam ne ni mu ko téyee sagal nanu ci ndax lu ne daa xew lu waroon a tax mu teg liggéey bi baa mu xajamal ko baa mu wàññi ko waaye mu ne mu ne mu ne mu téye ko ci war ma ji mu ko téye ci pasir ngor gi bëgg gi gëm gi tolluwaay bi ndimbal li ba mboolem taalibe boo xam ni daa nga def ci sëñ bi benn fi mu toll nii yóbbu na la ci nga ciy def téeméer ak fukk te pës seefam ak doxinam rek moo la ci puus li nga ko gën a sant mooy nangoo tegoo nangoo lu ne nangoo dat lu mbirum sëñ loolu ñëpp la ko defal waaw ndax moom bu doon moom moom moom rek ak jàmmi boppam ak yooyu wax dëgg yàlla mën naa jubóog ñëpp mooy bu fexe woon rek ba liggéey bi mu teg ko ci suuf nii gas ko suur rek am jàmm ni ñëpp waaye liggéey bi du laal suuf lu mu dégg moo ko teg lu mu daj moo ko teg te loolu noonu la ko defal te ñun dañoo amul nag ku sëriñ beccu te sëñ Saliou ko ne woon sa mbir dafa lëkkaloo mbirum sëriñ Tuubaa li fii ak mbirum sëriñ Tuubaa ngi dem sa mbir di dem man sëñ beccu mbiram fu mu feeñ rek ma békki ndax jëfam rek lay wane man foofu laa ne sëriñ bi waajale ak nii ma ko melal eh, xol bii mu ko jox yërmande jii mu ko jox melokaan wii mu ko jox maanute gii mu def ci moom waaye pësseef bi ndimbal li wattaay wi wax dëgg yàlla day nun la doon ci nun dara lu nu naqari ko ci moom te saa su nekk it lu ñuy soññ rek la ñuy gis ci moom waaye duñ gis ci moom mukk dara loo xam ni eh, nu tuddati la moo tax yàlla na fi yàgg tiwir ànd ko yaari buntam yi nag soxna Batour Saliou ak soxna Adja Saliou nii nu ak moom sunub sag la ndax ñoo xam ne dañu doon tudd ay wujju ci saaxir ñuy sànnantee wat nu xëy seenub sang jiital kenn nee ni yéen ñaan ñi ko def topp leen ko def leen ko muy seenub sang ñu nang ko nii nu ko defee ba àdduna xeweek léegi maa ngi koy doo a gis mm-hmm. te yaakaar naa it bari naa ci morom kenn mësu ko gis mm-hmm. nu gëmee ko nii toppe ko nii mm-hmm. te it di ko ànd ak moom liggéey bi nag àndin rafet bëgg ko sopp ko wóolu ko yaakaar ko doyloo ko ah, di xàccu nag moom di dóora nag moom loolu it amee nañ leen ci ak cant ak ñaan ñaan nu yàgg fi téwéer bu ko defee nag bis bii ñu jëm nuy ñaan sëñ Tuubaa yegg ci Tuubaa rek yëkkati leen eh, ngeen ñëw ngir nu waxtaane sëñ bi tiyaaba jooju ngeen nu defal noo ngi leen ci sant bu baax di ñaan nit seen télé bi di Talibe TV yalla na nu turu wuyu ñun ñëpp nu amuk Talibe na Talibe TV mom ñëpp ko di sétan nak ak Talibe rek am solo sëñ Tuubaa def ko nak mu don télé bu kawé bo xamné dana yegg ci réew mi fo xamné ak bitim réew ak adina fu kawé ndortu eh, sëñ bi bo lañu defal nu ngërëmam ak mbégam te saxal nu ci Talibe waaw kàddu yooyu rek la don eh, wàccee samay kaddu na ñaanal ak soxna dama yagg fi téwéer rek ànd ko buntam ci barkeb sëriñ bi ñaanal ci Amadou muntaha mu yàgg fi tawér ba yeggaleen naal yi muy naa la Sëriñ Tuubaa yàgg a fekke màggal gi nu yàgg ko ànd ak moom sëriñ Seexum Sëriñ Saaliw mii sunu bunt ki Sëriñ Tuubaa ci seen kër sëriñ Saaliw it yàgg fi tawér ànd ko njaboot gi ñu ànd ñu yàgg ko ànd ak ñoom ak njabootu Sëriñ Tuubaa yépp yàlla def jàmm ci réew mi ci barkeb sëriñ bi waaxiru daxwaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah macha allah dañ koy gërëm moom sëriñ Saaliw Samb ci disponibilité bi wax fa dëgg yàlla waxtaan wi jël na temps waaye tamit lépp dañ dul doyal ci moom te it maanaam Serigne Saliou Samb dafa nekk borom xam-xam bi nga xam ni boo toogee moom question ouverte ngay am muy loo bëgg ci Serigne mën nga ko laajte. dama ko yàgg dégg barke damay déglu ay waxtaan képp ku ma jege xam nga ma ci mën a déglu waxtaanu Serigne Saliou Samb ci mën a jox temps ci mën ka di ko bàyyi xel saa su ne wax fa dëgg yàlla maa ngi koy ñaanal li mu bëgg Sëriñ moo ko xam yàlla na ko Sëriñ Tuubaa defal balaa loolee sëñ Béthio dama ko dama ko dama ko yàgg ëmbal cofeel barke Serigne Saliou billaahi barke Sëriñ Tuubaa bëree na su may dox ñu may jaawaleeg cantaakoon moom laa sax waaye bu fekkee jébbalu jébbalu ma ci waaye xëy na cantaakoon laa ci en sama do نحيت خينا بوكنا تي كيما بغلو سيغ بيتو بو تيوبار يالا جالي موي محمد سون سما فرير بوبو خامني ياغ نامي خيرتل تي لول محمد مان كوي گرم موميت ديكو نانال ميغي بو اسبان كو ياغ جوت بغ ما جوتاي اك سيرين سالي لا تي وقتان اوف دغ يالا ياغ نامي تي سون مان كوي نانال موميت لام فاي ووت موك خام يالا نكو سون بروم ديفال اك سخنام اك اي وجيروم ييب اك باكي ماغ نيو فيب فوتانتا كو ني تي ريومي ماغ لين دماي ايميشن يين ييب تييت ماغ گرم كيغا خامني موما جوخ لي موي سيرين جبريل نيان دو موريت taalibe Cheikh la waaye dafa ni ma fii léeg safar gi fii léeg màggal gi saa su ne moo may solal <laughs> te du murit wax fa dëgg yàlla maa ngi koy ñaanal moom it suñu borom yokk ko barke Sëñ ko aar ko barke Sëñ Tuubaa te di ñaanal sama caméraman bi Cheikh moom nga xam ni wax fa dëgg yàlla sonnul benn yoon ci liggéey bi saa su ne cofeelam la kay gunge kon maa ngi ñaanal ñaanalat mbooleem murid yi te yàlla na nu gën a jekku màggal gi di ko ñaanal moom Serigne Saliou suñu borom sàmm ko barke Sëñ Tuubaa di leen jox dig daje beneen yoon ak ci woon bëgg Bàmba sur Talibe TV jërë ngeen jëf li sa'il wa fi safar